ñu ñëw ci fullaw waxtaan bi ndax dama jàpp ni li xew démb ci guddi cinéma la woon mooy yéen ñëpp gis ngeen Macky Sall ñëw taxaw euh, wax ay waxtaanam nee na changement climatique moo andi lii man damay toog ba si yàgg ma ne Macky sal dafa nawul askan wi mu jiite parce que dafa am loo xam ne boo nawee askan dafa am loo xam ne doo ko wax ndax nit ñi seen bopp yi xel moo ci nekk yuur moo ci nekk buy xalaat nit ñi seen bopp yi ndox new ci mais ñoom dañuy jàpp ni nit ñi xamuñu lu xew ci dëkk bi ma bëgg a wax sénégalais ni loolu mu wax dafa amut li xew senegal responsabilité exclusive et personnelle de Macky Sall li xaw fii ci senegal mooy li ñu tuddee mbënd mi kenn mooy responsable te bëgg naa askan wi nga xam ne tey moo ci gën a sonn mooy souffrir ëllëg Macky Sall dina sol dàllam ñëw ne daf leen di seet si ah annoncé na ko xaw ma ndax dina ko def. gannaaw bu ñu sàgganee jàpp alal réew mi di ko pasar pasare di ko séddoo ñoom ñëpp ay milliardaires lañ fi mu sol nii. ci ñoo xam ne amuñu woon dara barki démb ak démb ñoom ñëpp milliardaire lañu seen géwél yi sax milliardaire lañu léegi ñoom ñëpp ci pasar pasare alal réew mi dagg ay terrain fi mu ne ni ñu ngi ci aéroport bi dinañ ci ñëw ci beneen affaire dagg ay terrain jaay jaay pétrole jaay zircon jaay gaz jaay suuf senegal jaay euh, euh, euh, géej gi daal ci yor seeni milliards yi milliards bu ñu sàggat bu ñu seetaanee nag ba musiba ñëw mu njëkk a yebal jabar ja ne ko demal moom mooy distributeur distributrice automatique de de billets mooy njëkk a dem ko defee ñu ne ñëw na vraiment teranga andi na fi teranga ci lémpo Sénégal yoo xam ne moo waroon defar dëkk bi bu demee nag mu nooy moom mu doog a daagu ñëw xam naa nag comme dégg naa démb xawoon naa jafe fële ci banlieue ba boo moytul gars yi duñ ko gaaw a gis mais dama bëgg wax population sénégalaise ne bis bu solee dàllam ñëw seet si leen na ngeen jàpp ni lu leen dal moo leen ko teg moom Macky Sall il le seul responsable incompétence am incapacité am manque d'amour pour la patrie yooyu yëpp boo ko dajalee moo andi lii ma koy faramfàcce fàcce ci ñaari pàcc bu ci njëkk mooy dinañu joxe ay chiffres ak ay faits yu concret yu wane ni Macky Sall dafa wor askan wi te li mu diglanteeg ñoom defu ko ndax bi mbënd bi amee 2012 boobu moom mi ngi doog a toog yéen ñeer dégg ngeen ko mu annoncé un programme boo xam ne mat na 750 milliards wala 767 milliards wala 745 milliards selon les différents documents waaye nu gën gën saa gàtt daal jege na 750 milliards ñu annoncé ko fii ñu dox tuuti. yàlla def mbir mi calmé wu mu koy bàkkoo ba yóbbu ko argument campagne électorale ne ci ñeenti at laa réglé problème mbënd bi fekk boobu jamono réglé wul tous li andi woon mbir mi mooy dañoo newoon ci cycle parce que mbirum taw ay cycle la ñi nga xam ne ñu ngi seen xam-xam màcc na ci loolu xam nañ ñi mbirum taw ay cycle la mun a nekk cycle 10 ans mun a nekk cycle bu gën a gàtt mun a nekk bu gën a gudd waaye ñëpp xam nañ ñi taw dina am ay cycle yoo xam ne taw bu foor la. bu dajaloo mu am ay cycle yoo xam ne taw bi dafay xaw a néew doole at yi ñu jóge nag cycle pluviométrie bu faible la ñu nekkoon kenn newul nag defuñu dara dama bëgg mu leer am na lu ñu jot a def te loolu am na lu mu wàññi ci mbir mi waaye lii problème bi mooy li ñu diggoon Sénégalais dañ koy def defuñu le dixième loolay problème bi ma koy firndeel ci lu leer li ñu tuddee ñoom programme décennal d'investissement prioritaire 2012 2022 ba ñu defee seen conseil des ministres en 2012 ba génne programme bi dañu waxoon ni programme bi dañ ko war a exécuter pour inondation waxuma la jeex ci Ndakaaru waaye jeex ci senegal ñu def ko ci ay pàcc pàcc yi ñett la woon bu ci njëkk mooy plan d'urgence dañu waxoon plan d'urgence 2012 2013 plan d'urgence boobu moo waroon régler problème yépp moo tax bu ñu toogaatee ba 2020 démb ci guddi Macky Sall def discours naan programme d'urgence loolu mooy lajj na 2012 nga ne plan d'urgence plan d'urgence boobu dañu ñëwoon 69 virgule 6 milliards lañ ciy def 69 virgule 6 milliards ñu ne ensuite bu ñu paree plan d'urgence boobu deuxième partie bi mooy le programme à court terme ñu ne boobu 339 virgule 6 milliards lañ ciy def bu ñu paree loolu nag mu am un programme à moins et long terme nga xam ne deux phases la 2017 2019 2019 2022 boobu ñu ne woon dañ ciy def 336 virgule 6 milliards yooyu yëpp boo ko dajalee mu ngi lay jox 767 milliards 800 millions li ca des nag mooy euh, volet administratif beeg yenn yi ñu waroon yokk lii la Macky Sall dige woon sur 10 ans 2012 2022 tey ñu ngi ci 2020 daanaka 2021 la ñu gën a jege 2022 2021 la ñu gën a jege 2000 2020 ndax ñu ngi ci mois de septembre ana lan la ci Macky Sall réalisé parce que dañuy bugg suñuy wax ñu teg ko ci ay fay yu leer nañ parce que sénégalais yu bëri ñu ngi naan fan la 750 milliards yi dugg il faut ñu wax leen ni 700 milliards 750 milliards yi génnul am na lu ci génn loolu dinañ ci wax liñ ciy wax am na lu ci génnul dinañu wax lan moo tax génnul 700 767 milliards yi ñu waxoon ñoom boo ko xoolee ba ci biir ñoom liñ ci génn effectivement parce que organisme yu doon réaliser programme bi du benn. ONAS moo ci ëppale woon waaye am na ku ñuy wax projet am na ñeneen ñu ndaw ndawaat ñoo xam ne sone sax amoon na ci parce que ay volet la waaye ONAS moom mu ëppale ci moom parteem ci document yi ñu jot a am ñun 285 milliards ak lu teg waroon na ko nekk waaye ONAS nee na moom ci jamono ji ñu toll c'est-à-dire après 9 ans d'exécution ONAS nee na moom 48 milliards la réalisé 48 milliards la ñu mobiliser effectivement te loolu rek la xam ci li ñu mobiliser nag cest sur les 700 et quelques milliards pour le moment ci li ñu gëstu ak li ñu jot ci document 48 milliards yooyu la ñu am firnde li lii nee nañu moom la ñu mobiliser exécuter ko 48 milliards ci 7 700 et quelques milliards c'est même pas 6 pour cent d'exécution même pas 6 pour cent d'exécution la ca des. nee nañu am na quinze milliards yoo xam ne ci zone Kaolack bi mi ngi en cours ñu ngi koy essayer mobiliser ne am na 117 milliards yoo xam ne lu ñu war a uti la lu ñu war a jéggaane ji la ndax yoraguñ ko dama bëgg ñu déglante bu baax diggante 765 milliards yooyu ak 48 milliards fi ñu daanu ji gannaaw 9 ans kon loolu am na problème bu rëy. te noonu loolu dafa ëmb lépp luy problème mu environnement au Sénégal ndax problème environnement yàgg nañ koo lim problème mu bël ba Saint-Louis Ndar ma nga fa avancé de la maire mi ngi fi li nga xam ne remontée saline yi su euh, xorom gi yéeg di nangu tool yi rawatina fu mel ni Casamance wala booru Njombato nga xam ne nit ñi mëntuñu béy mi ngi fi avancé désert bi mi ngi fi. amu ci benn boo xam ne mun nañ la wax ba lan moo ci programme Macky Sall ak lan lañ ci def loo xam ne lu am fulla la kon li ma bëgg a foofu mooy Macky Sall dafa musut jël mbirum inondation def ko fulla bañ a commencé ci 2012 mu ngi doog a toog mbir mi am ñu gaawantu euh, euh, euh, fàtt fii fatt fële yàlla def ak yi ci tegu amul pluviométrie bu fa ca la ca raxasoo ba set moo tax suñu toogee mu jékki-jékki mel ni ku ximbaliku man su ma gisee nos amis journalistes titré Macky Sall pique une colère noire damay reetaan ba bëgg a dee ban colère noire moom xam na ni defu ci xaalis xam na liñ ci waroon def defuñu ko ci ban résultat la mun am mënul am benn résultat te président boo xam ne lu ñu wax ñu ne yéeguloon moom xam naa ni gëm naa ni sax moom yéegul ni mooy président peut lu ñu wax ñu ne Macky Sall yéeguloon il pique une colère noire il n'était pas informé lépp yéeg na ko nag amul lu ko ump parce que amul document bu mu validé wul bu ne egsiwul ci table